ñii di waa comité d'action et de réflexion intersyndicale sur la migration amaloon nañ ab ndaje ngir waxtaanee document stratégie nationale bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy xeex migration irrégulière euh, tey am nañu ay commissaires yu ne jógee ci SLAC ah muy comité interministériel de lutte contre l'immigration irrégulière euh, ñooñu aussi suñuy kàngam syndicat yoo xam ne ni aussi dañuy yëngatu ci wàllu ay experts lañ si wàllu syndicalisme ñu seddoo ak suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk tey muy ay ay ay migrants de retour muy aussi ay potentiels migrants mais aussi ñoo xam ne ay association de migrants lañu ñu ne ñun ñëpp nañ fexe waxtaanaat ci stratégie bi nga xam ne kat document stratégique la boo xam ne ne dix ans lañ ko fi def pour que naka la état bi fexe di xeex pour immigration régulière bi ñu ne kooku dafa am ñoo xam ne xam ñu bëri xamuñu ko nañ ko siiwal ah pour que nit ñi gën ko xam ndax it eh, xoddeeku balaa ngaa lakkale nit yi bu ñu xamee dañ mën a moytu mais xanaa lañ ci ñaawlu rek mooy ne hmm, malgré ah documents yi am na ah ndax dafa ñëw ci période boo xam ne ni période boobu eh, jeune yaa ngi dem ak doole ñii Nicaragua ñii Îles Canaries hmm, jaar ci géej gi ñi jaar ci jaar jaar ci suuf si désert bi. ñu ne nag léegi dafa jar nag nit ñi ñu sensibiliser leen ndax liy dem ak liy dee ci bëri na ay xale ngi ci ay jigéen a ngi ci ak aussi surtout nag la jeunesse ñu ne kon nag nañ taxaw seetlu certes encouragé wu ñu dem boobu mais nañu yombal visa yi def nañ ci benn marché barki Dembo Ndiaye pour le durcissement bi am ci visa yi. joxe sa xaalis ba pare te may ñu la sa visa. ca noonu ñi ngi woo nguurub Sénégal ngir mu gën a jàppale ndaw ñi rawatina ci wàllub liggéey. xale na comme bu ñu amatul visa te yoon boobu mooy yoon bu légal bi dañu mujj obligé dem ci géej gi. ñu ne kon état na fexe góorgóorlu tam accord yi nga xam ne moo am bilatéral yi am entre ñun ak waa Espagne ñun ak waa Allemagne ak ñun ak waa Arabie Saoudite accord yooyu ñu jéem ko tas ndax loolu au moins dina indi li ñuy wax migration circulaire di yombalal migration bi nga xam ne aussi booy migration saisonnier xale bi dem liggéey mën a ñëwaat Tunisie mu ngi koy am Maroc mu ngi koy am pourquoi pas suñu jeunes yi am ko ah, suñu état jëm ci góorgóorlu loolu yaakaar naa bu amee doon na gën a yombal ci wàllu pétrole bi ak gaz bi aussi dañ ne aussi métiers yooyu comme ay métiers yi nga xam ne moo laal ci pétrole li ñu dal ci terre bi ak li ñu dal ci euh, même BRT bi di waaj ñëw ñu xamuñu ay amuñu ay experts yu leen di conduire amuñu ay experts yu conduire train ñu fexee noonu kon métiers yooyu ñu fexe ma xale yi pétrole ak gaz ba ñun expertise bi duñ ko jëli duñ ko jéggaani bitim réew ñu fexe suñu doom yooyu ñu jël leen ci ñu mën au moins ñoom bu ñu xamee loolu mën ci liggéey ndax la ñuy mujj rek fan la ñuy mujj aussi la ñu góorgóorlu tam ñi nga xam ne aussi nag mooy zone aurifère yi lu mel ni ay Kédougou tey boo fa demee sa yaram day daw xale yaa ngi fa ñu leen ñu ngi sax pour liggéey rek ñu ngi leen sax di boom ñu fexe nag ñooñu tam ah fa fa fa nga xam ne moo am donc pétrole yi moo am aussi gaz yi mais jeunes yi fee nekk itam vraiment gis seen bopp. mu nekkoon ab réunion boo xamante ni ñii di waa charisme ñoo ko organisé woon ngir waxtaanee stratégie nationale yi nga xamante ni mooy lutter contre migration irrégulière.